sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslim sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit xam nga ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko waqul rabbi zidni ilma waxal ne yàlla yàlla nag ma dolli xam-xam amul feneen foo xam ne danañ gis leneen lu yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñaan ko ma dolli la ko waxu ko ne dolli ma alal waxu ko ne dolli may doom loolu li ma njaboot dool li julli yooyu yëpp amut amut beneen ñaan bu waaye xam-xam moom nee na ko ñaanal ne yàlla dool li ma xam-xam kon loolu li muy tekki moo di jëmmi xam-xam ci boppam amut loo xam ne moo ko gën a tedd loolu moo tax la gën a tedd ci yi am rek moom la borom bi tabaraka wa taala digal ab yonentam mu ñaan ko mu dolli ko biñ laajee borom xam-xam bu mag al Fudayl ibn Iyad radiallahu taala anhu biñ ko laajee ne ko xadis boobu mooy lan maanaam sàkku xam-xam dafa war bépp jullit mu ne ko kullu amalin kaana alayka fardan fa talabu ilmihi alayka fard bépp jëf boo xam ne bu war ci yow la sàkku xam-xamam lu war ci yow la bépp jëf boo xam ne sàkku ko jëfe ko dalaa war sàkku xam-xamam war na la kon la la jëkk war yow jullit bi ci l'islam moo di laa ilaha illallah kooku sàkku xam-xamu xam moo la jëkk war kon gannaaw bi julli da lay daal di war kon sàkku xam-xamu julli ak la ci aju ak la koy wéral day daal di doon lu war ci yow waaye nag am na yeneen yoo xam ne doo dugg ci lislaam rek mu daal lay war day ami char lu mel ni asaka du caa gi ne ñëpp la war ka am alal la war kon jamono yoo amee alal sàkku xam-xamu asaka day daal di war ci yow aji màkk nekk noonu ki ko man ci alalam ak ci wér kooku la war kon fu mu ko mënee rek sàkk ko dee daal di war ci nañ waaye nag rafetlu nañ rafetlu nañ même yi la war a gut soo manee sàkku seen xam-xam nga sàkk ko ba bis bu ko waree nga daal di dem nga daal di koy mën a jëm jëfe jikko kon nag xam-xam bi tax ñuy wax foofu mooy xam-xam boo xam ne mooy bii wéral pas-pasu jullit bi di wéral diineem ci wàllu ay jaamu yàllaam di ko xamal boroomam di ko xamal yonentam mooy xam-xam boo xam ne lay cosaanam mooy ñetti xam-xam yi comme ni ko alxaafis ibn xajar di waxe mooy tafsir ak xadis ak fiq ñetti xam-xam yi pour nit ki daf ci war a jima góorgóorlu képp kàttanam tafsir ak xadis ak fiq ndax yooyu su ko jàngee dana jàng ci biir wàllu pas-pasam dana ci jàng lu bari itam ci diineem dëgg la xam-xam lu bari ay ay bunt bu aju ci sàkko xam-xam ak lu ci aju wax yu baree bari ma na ko wax ci gàttal moo tax Euh, diisul xóot foofu di ci wax yu bare bare ala kulli xaal kii sàkku xam-xam bu fekkee ne euh, gis na ña muy sàkkoo xam-xam war naa jéem a góorgóorlu mu tànn mu tànn ca jàngalekat ya ñi ci gën a jaar ci siraatul mustaqim ñi ci gën a jub jàpp ci sunna ëpp ci itam xam-xam loola moom la war a jiital jamono yoo xam ne gisut loola nag wala manqué na fenn fu ne la fa sës a waaye euh, borom xam-xam ñi nga wax ne ki jubul moom même fatwaam sax su ko jëfe al imaamu nawawi day wax ne inna al fasiqa la tasixu fatwaahu bi ijmaai al muminin muslimin ki nga xam ne jubut ab kàccoor la même su fatwa wax ci diine ne nangam nii la nee na loolu kenn du ko jëfee loolu nee na jullit yi dëppoo nañ ci juróomeelu yi lay war yow jullit bi askanoo ci asalafu saalix moo di albadu bi daawati ila tawxid sab woote ci lislaam nga tàmbalee ko woote ci tawxid ndax tawxid moo jiitu loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu yónnee Muaas ibnu Jabal euh, radiallahu taala anhu yaman da ko fa yabal muy woote ji mu ne ko innaka taqdumu ala qawmin min ahli alkitab yaa ngi jëm ci nit ñoo xam ne ahlu kitaab lañ ñu doon jàng téere lañ ay nasaraana fa nekk nu may def mu ne fal yakun awala ma tadoohum ilayhi an yuwaxidu allaha taala kooku mooy riwaaya Buxaari la nga leen di jëkka woo na doon tawxid fa ida arafu dalika fa axbiruhum anna allaha farada alayhim xamsa salawatin fi yawmihim wa laylatihim su fekkee xam nañ loolu li tax ma tànn riwaay bi mooy daf ci am yu bari yoo xam ne dafay fedd li ma la doon wax ne xam laa ilaha illa allah ci boppam ak tawxid xam la laaj moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko fii fa ida arafu dalik su fekkee ne xam nañu xam nañu li nga leen doon jàngal ci tawxid su boobaa nag nga jàngal leen yàlla faratal na ci ñoom julli yàlla ak ñoom ci koor yi ba xadis ba jeex beneen riwaay bi daf ne ko uduuhum ila shahadati an la ilaha illa allah wa anni rasulullah woo leen ne nañ seede ne amul benn yàlla ju ñuy jaamu muy doon dëgg ju dul yàlla man itam maay yonentam xadis boobu Buxaari ak Muslim génne na ko waaye noonu ma ko waxee noonu la ko Buxaari solo bokk na ci yi lay war yow jullit bi juróom-benneel bi moo di al iman bi kulli ma axbara bihi nabiyu ma yakunu ba'da al mawt jullit bi ngir jullitam wér faw lépp loo xam ne yonente bi wa sallam indi na ko ay xabaaram mu jóge ci sunna mu nekk ci biir alquran faw mu gëm ko ci li nga xam ne lépp day am gannaaw bu nit ki faatoo yonent bi wax na foofu nett li nañu foofu yu bare bare bare yoo xam ne nit ki bu faatoo daf koy dikkee yooyu faw jullit bi gëm ko la ci jiitu mooy fañ ko suulee kat balaa nit ñaa yeewiku malaayika yay laaj ñu ngi dikk toog fi kanam di ko laaj moo tax dafa daan wax ne istagfiru li axikum fa innahu alaana yusal wasaloo lahu tasbid jéggalu bu suulee ba nu àggal danaan jéggalul leen seen mbokkum jullit ndax kat ñi ngi koy laaj fii nu toll ñaanal leen ko aw tontam dëgër tontam dëgër ñetti yëf lañ koy laaj kan mooy sa boroom lan mooy sa diine kan moo doonoon sa yonent kan moo doonoon sa yonent su boobaa nag laaj yooyu dafa doon laaj yoo xam ne dañ koy waajale fii waajal ji mooy nga bind ko ci ab kaye jàng ko ba mu mokk nga ne bu malaaka ma ñëwee bu ma laajee dana fekk ma mokkal comme ni nga koy defee ci examen déedéet yowmal xiyaam li ko wutaleeg àdduna mooy amatul njuuj njaaj lenn lu nekk rek ci dëgg ga ngay jaar amatul amatul toppale suñ la laajee ci loo nekkoon da ngay di lim cër yi ci boppam ñooy tontu al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kaanu yaksibuun loxo bi day taxaw man di nangam ak laa doon def tànk bi taxaw ne nangam ak nangam laa doon def làmmiñ wi kenn ku nekk di wax lam doon def kon fañ koy laaje foofu su fekkee ne diineem moo doonoon diiney lislaam borom bi tabaraka wa don donc la gëmoon ne mooy yàlla amul keneen ku doon yàlla wala nga am benn cër boo xam ne dafay nuru cërub yàlla gëmit ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam donc moo doon royukaayam ci kaw suuf kooku bu boobaa alhamdulilah tontu yu wér dana ko mën a tontu waaye nag su fekkee ci leneen la nekkoon su boobaa aw layam du mën a dëgër la mu nekkoon rek lay mën a wax kon faaw jullit bi gëm yooyu yépp gëm ne laajub bàmmeel gi am na gëm ne mbugalum bàmmeel day dal ci kaw képp koo xam ne si yeyoo nga ko muy ko def loo xam ne day waral mbugalum bàmmeel di am wala yaasu billah yàlla na ci yàlla musal lu méttee métti la addis yi koy détaillé détaillé bu doy waar la koy nettali yàlla na ci yàlla musal gëm ya nga xam ne mooy am bu yowmal xiyaam ñëwee dekki ga indi ñëpp fi kanam seen borom kenn ku nekk ñi di la laaj ba nga defe ne yow dong la sa borom bindoon buñ noppee jox la sa téere ñi nangu seen i ci seen loxo ndeyjoor ñi nangu seen i téere ci seen loxo càmmoñ kenn ku nekk jëm fa nga jëm yooyu yëpp faaw jullit ci gëm ko ndax yonente bi sallallahu alayhi wa moo joxe xabaar bi te lu mu wax lu ne dëgg la lu mu ne dëgg la kon kooku day war ci nit ki mu gëm juróom-ñaareelu bi yi la war moo di al axdu bi zahiri al kitaabi wa sunna fi qadaaya al aqida jël alquran ak sunna ci lépp loo xam ne lu aju ci pas-pas la jëliin woo xam ne du ànd ak li ñuy tuddee tawil ak lem ak jii ma sàkk leneen loo xam ne yaay fas sa pas-pasu bopp ba noppi ñëw di ko seetal foo ko mën a sukkandiku ah xam nga ne ahlu sunna bokk na ci li ñu leen di xamee mooy dañuy ñëw ci alquran ak sunna bu yar bu borom bi rëddee ni nii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii la ñu ne noonu soo jëlee foofu door a fas bu dee fas fas bu dee jëf nga door a jëf bu dee jikko nga door a jikko woo maanaam dañuy xam ba àggal door a jëfe ñi nekkul ci sunna nag nekk ci bidaa dañuy xotti seen yoonu bopp jëf sa jëfi bopp ba àggal door a ñëw nag ci alxuraan wala xadis di lemmi di seet ba xam lii ngay jëfe danga gis loo ko mën a dëgëraleem loolu du jëfin bokk na ci yi la war mooy da war a doyloo alxuraan gëm ne mat na gëm ne lépp loo xam ne soxla woon nga ko ci diine mi ngi ci biir moo tax borom bi tabaraka wa taala dafa ne fa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa ku topp sama njub kooku du réer du texee di abdullah ibnu abbas firi mu rafet la ko firi mu ne takaffalu allahu liman qaraa alquran wa amila bima fihi an la yadilla fi dunya wala yashqa fi alaxira yàlla moo warlul ki jàng alquran jëfe ko ne du réer ci àdduna yi réerale ci àdduna yépp dana ci mucc waaye du texee di itam àllaaxira ñaar yooyu defe naa ko ko am mu ku réerul fii ci àdduna mucc nga ci réer ak yi li muy bari bari bari li ci ñëw nga mucc ëllëg nga texe ñaar yooyu ku ko am mu doy yàlla na ko yàlla may yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu baadi abadan kitab allahi wa sunnati naa leen ak ñaari yoo xam ne li fay yéen a ngi ci jàpp du ngeen réer ba faw ñaar yooyu mooy lan mu ne alquran ak sunna téere yàlla bi ak sama sunna kon ñaar yooyu wax dëgg yàlla doy nañ lépp looy gëstu ci sa wàllu pas-pas sa wàllu adduna sa wàllu doxalin lépp looy gëstu lu ne mi ngi ci alquran ak sunna soxlawoo moos di dem di jéggi feneen fu génn ñaar yooyu yow jullit bi juróom-ñetteel bi adamu tafriqi bayna alkitaabi wa sunna léegi nag da ngay gis ñoo xam ne dañ lay wax ne man alxuraan ji rek doy na ma waaye sunna moom xadis yi dafa jafee xam ndax nee nañ di ci am yu wér ak yu wérut ak yooyu yëpp neexut a xàmmee kon koy ba rek jàpp ci alxuraan ji waaye déedéet loolu dafay juuyoo akuk askanoo ci sunna ndax alxuraan ci boppam mënee su koo dégg te delluwoo ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunna yonent bi mooy jëfam mooy waxam mooy lim saxal su fekkoon ni doomu aadama ji dafa ñëw rek ne moom alxuraan rek moom lay jël doy na ko kon kooku julli sax du ko mën a def mooy jullee ku la wax ne julli yi juróom la ndax looloo ngi ci alxuraan nekkul ci julli tisbaar gi ngay bëgg a julli ku la wax ne ñeenti rakkaa la nekkul ci alxuraan julli takkusaan timis benn détail bu aju ci loolu lu dul aqimu salaa taxawal leen julli nuñ koy taxawale loolu mënoo koo xamee ci alxuraan fi nga mën a dellu mooy sunna mu jàngal la ko bunt yépp boo ko toppee noonu la boo demoon ci asaka xamoo kañ nga génne yan mooy yi ngay génne boo ko génnee kookoo ko jox naam mi ngi ci alquran borom bi tabaraka wa taala nee na génne leen asaka jox leen ko ñii waaye nag ci nan lañ koy defee sunna moo la ko mën a leeral leeralal kon kenn du tàqale diggante alquran ak sunna bokk na ci yi mënta jàkk ci sa dund saw jëfiin ci biir diine yow miy askanoo sunna di askanoo almanhaju salafi moo di taqdimu naqli ala al aql bu alquran ñëwee sunna ñëw sam xel moom lam lay jariñ mooy jiima xam li alquran ak sunna wax waaye alquran ak sunna du indi eh, xelum doomu aadama du indil boroom diine du caagi ne xel mi ngay jël loo natt ba gis ne lii xel mi nangu na ko rek loolu war naa jub déedéet xel mi du noonu xelum doomu aadama melul nenn jenn doomu aadama ji sax day rafet rafetlu tey bu ëllëgee mu ñaawlu fukki doomu aadama bokk nekk fi benn béréb boo xam ne eh, ñoo bokk fenn fuñ juddoo ñoo bokk ni ñuy xalaate ñoo bokk lépp benn masala ñëw suñ leen laajoon kii day wax ne nii la kii ne nii la kii ne nii la kii ne nii la ñu jur kon xel mi xel mi du sukkandikukaay ci diine waaye li ñuy sukkandiku moom mooy liñ toxale ci alquran wala ñu toxale ko ci sunna loolu moo tax ali ibn abi talib radiallahu taala anhu daf doon wax ne su fekkoon ne diine xel la su ñuy masaa aw sànq kon ñi masaa ci suuf moo gën ñuy masaa ci kaw ah ñi masaa ci suuf moo gën ñu mas ndax boo solee aw sànq mooy dàll woo nga xam ne der lay doo ñu ko sol muur tànk bi yëpp xam nga ne boo jàppee ba noppi sol ko sañ nga booy jàppaat da ngay masaa rek ci kaw soo ko solee di dox tànk bi mooy tegee ci suuf suuf gi mooy féete ci suuf kon foofu mooy taq kon su fekkoon ne sa xel ngay jiwu buñ ne laa masaal sa sang we waaye door a julli kon ci suuf ngay faxas door julli waaye mu ne mbir mi nekk du xel kon ndax lislaam dana ci kaw rek ngay laal ndox mi ci nga koy masaa kon du xel yu bare bare bari boo ko jëlee teg ko ci xel ci tëraliinu lislaam da yëg ne borom bi tabaraka wa taala néewul nga topp sam xel waaye toppal li ma wàcce la la wax yooyu yu bare bari da koy wone danaa ci di jox mbokk yu misaal ci am ngaanuwaay ki dem ci wanawi saw saw kooku lan moo ko war ci lislaam amaa muy julli dana raxas bérébu sawukaay bi ba set mu jàpp daal di julli saw ndax am na benn boroom xam-xam ci boroom xam-xam yi lislaam yoo xam ne jooyoo nañ ci ndax sobe la wala du sobe déedéet amul yépp dëppoo nañ ci ne saw sobe la waaw mani miy génn ci sëy kum génn ci lu la war ne ah, kooku day du raxas béréb bi mu génn rek waaye yaram yépp lay sang ba mu set mu door a sañ julli te li ëpp ci borom xam-xami lislaam dañ ne ma yu dafa laab te loolu mooy li gën a wér du ma mani du sobe dafa laab ndax mani ci lañ bind doomu aadama te doomu adama dafa laab su sobewu woon doomu aadama sobe lay doon wala yaasu billah kon lu ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne dafa laab wala li ëpp ci ñoom nangu nañ ne dafa laab te euh, addis yépp loolu lay tegtale itam ba noppi comme génne ci yow sa yaram yépp ngay raxas waaw lii nga xam ne ñëpp dëppoo nañ ne sobe la te comme génn ci yow béréb boobu rek ngay raxas ana xel ah xel nekkul foofu li wér foofu mooy yàlla kay moo naan defal nga def bu ne bàyyi lii nga bàyyi kon jullit bi ndekete toppul am xelam waaye diineem la war a topp léegi-léeg na nga gis ñoo xam ne dañuy ñëw sax même bu dee woote ci lislaam nga ne ah nit ñi de moom alxuraan sax am na ñoo xam ne wareesu koo wax ak ñoom parce que ñoom Euh, xel lañ gëm ni ñu xalaate ci wàllu science ak yooyu yeneen lañ leen war a wax waaye suñ leen waxee alquran ñu ko mën a dégg waaye loolu njuumte la alquranul karim ñépp lay waxal ñépp lay waxal amul kenn koo xam ne mën naa nekk ci benn étape boo xam ne mi ngi koy dund lu dul alquran mën naa waxal yow ba indi la ci lislaam su fekkee ne baax euh, dikk ci lislaam yeyoo nga ko kon jëmmi xelum doomu aadama ci boppam su muccee sax su muccee sax da ak ak alquran ak sunna waaye nag xel yi mucc moom moo dul bari ndax yi koy yi koy gaar ba dootu mucc yooyu dafa bari al imam samaani day wax ne xamal ne ngirum ahlu sunna wal jamaa moo di ann al aqla la yujibu cheyan ala ahad la lii farata la lii sunna la lii farata la lii sunna déedéet xel du waral dara wala yarfau cheyan anhu wala xasalahu fi taxlilin wala taxrim xel munta daganal munta araamal nee na xel munta rafetlu munta ñaawlu nee na li su fekkoon ne amut lu jóge ca yàlla wàcc ñu naan def leen li bàyyi leen li kon dara du war kenn su ne xooy say lu mu def parce que sam xel day topp waaye nag bi dara xasee wàcc lu jóge ci borom bi tabaraka xamee ne ku def lii am lu baax ku def lii am lu bon lu baax a ngi lu bon a ngi loolu ca kaw la mën a jóge ñu door koo mën a xam waaye xelum doomu aadama munu koo mënu koo tëral boppam dëgg la nag xel mi di su ko neenal ndax lu am solo la ci doomu aadama ji moo ko tàqalee mala mooy tax ñu xam ne kii doomu aadama la xelam mi itam mooy tax mu mën a xam alquran mën a xam sunna bu amuloon xel du ko man xel mi sax mooy tax mu nekk mu kallaf waaye su demoon ba amatul xel dara waratu ko day dem yoonam kon xel mi ta ñàkk waaye ñu xam fam yam ñu xam fam yam da gis ñoo xam ne seeni xel wutaluñ ko fu mu yem lu nekk dañ ko fay jàllale sax ba ci mbirum yàlla di ci gëstu yoo xam ne xelu doomu aadama waru caa àgg ah, te doomu aadama kàttanam yépp dañoo am fu ñu yem moom ci boppam nangu naa reconnaître ne yim man yépp lu ci ne am na fu mu yem bët bi bu xoolee leer na ko def fii fii la yem jàllut li mu yëkkati ci lu diis xam na lim àttan ak lim àttanul yeneen force yi ci defit noonu la xel mi ci boppam dafa am foo xam ne fa la war a xalaate fa la war a yem am foo xam ne bu fa jàllee bu fa jàllee mi ngi mel ne yow yaa ngi jiima jóg di yanu benn montagne wala loo xam ne loo attanut la su ko def bokk na ci yi mënta ñàkk ci yow fukkeel bi moo di taazimu qawli saxaaba wal axdi bihi màggal saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nga bi sallallahu alayhi wa sallam li mu fi doon def moo di jàngal leen ak yar leen ba noppi ci ñoom ba yàlla gërëmal leen boppam laqad radiallahu an almuminina id yubayiunaka taxta shajara yàlla gërëm na ñii toog fii di jaayante yow ci suufu garab bi wax ne wassaabiquna al awalun min almuhajirina wal ansaari walladina tabacuhum bi ixsanin radiallahu anhum wa radu anhu ñi jiitu woon ci lislaam muy muhaajiroon yi ak lansaar yi loolu moo doon saxaaba yi nee na yàlla gërëm na leen ñoom it gërëm nañ yàlla ñii xanaa ñu baax lañ ki yàlla ci boppam wàcce alxuraan ni gërëm naa ñii kon loolu li muy firi moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu doon def ab liggéeyam amee na ko ni mu ko bëggee woon moo di dañ ko fee indi woon muy jàngale di yar jàngal na ñooñu yar na leen ba li yàlla bëggoon ci ñoom mu def ko ci ñoom ba yàlla waxal ko boppam wàcce alquran ne ko ñooñu di gërëm naa leen di wax ne fa in amano bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw su fekkee gëm nañ ngëm gu mel ne gii ngeen gëm yéen kon gindiku nañ kon ñi mel baax nañ yàlla nee na baax nañ kon li yonent bi sallallahu alayhi wa doon def sotti na kon ñii ñu mat a bàyyi xel lañ ku dem ba yàlla wàcce alxuraanam ne kii gërëm naa ko gërëm na ma kooku ku baax la ku mel ni mu war a mel la kooku waxam ci lislaam woyofut kon ñooñu ku jóg di wax ci ñoom ay kàddu wala nga di leen jàmm wala ngay wax ne baaxuñu ñooñu yow yaa gën a réer kuy réer kuy réer yaa ko gën a réer ndax tey wax li muy firi am na ay kuréel yu jóg walla yaasu billah lu mel ni chia yi ak ñu leen nuru dañuy dem ba sax lenn ci saxaaba yu mag yi nga xam ne Abu Bakar ak Omar ñuy wax ci ñoom wax yu ñaaw yu suufe àgg sax ci di leen yéefëral wala yaasu billah loolu liñ li muy firi mooy dafa mel ni kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam li mu doon def baaxul dikk na fi nekk dundam gépp jeexal na ko fa ne alxuraan ak sunna lay jàngale bi mu fi jógee ñooñu baaxatuñ yàlla it wàcc na alxuraan ne ñii baax nañ ndekete baaxuñ ah defe naa ne loolu loolu lu mel noonu ku xalaate woon noonu da yëg ne li ngay wax rëy na soo jamee kenn ci saxaaba yi li ngay wax rëy na moo tax imaam bu mag abu zurat ar-raasi day wax ne ñii di jóg ci saxaaba yi di wax ci ñoom ñooñu saxaaba yi taxu ñu leen a jóg mais lislaam a leen tax a jóg dañoo bëgg a màbb lislaam ndax kat nun lislaam su agsee ci nun su agsee ci nun ci ñii la jaar ñoom ñoo nu ne nu lii mooy lislaam nu gëm ko jël ko yor ko suñ dikkee ne nu ñii baaxuñu nu gëm ko kon lu ñuy dese dara nekkatul parce que la wax lu doon lu wér kon ñii wax ci saxaaba yi waxuñu ci saxaaba yi mais ci lislaam la ñuy wax kon nag loolu lu mat a lu mat a bàyyi xel la lu bari ci nit ñi nag buñ gisee ay kuréel yu nekk ci biir lislaam mën a piréer lenn ci mbokk yi dañoo jàpp ne ngir jullit yi mën a bennoo bennoo gi mën a wér yu mel noonu kenn waru cee wax dañ ko war a ñu ñugal rek bàyyi noonu jullit yépp doon benn ñu jaamaarloog noonu bi nga xam ne moo nekk ci bitti loolu gis gisi gisiinu la néeg bi nga xam ne dafa yor wala jëmm ji nga xam ne dafa yor aw yaram yaram ji tawat nga yëg ne fii ngi metti tànk baa ngi metti loxo baa ngi metti bopp baa ngi metti te dafa war a jóg jaamaarloo ko noonu su fekkee ne wér na ne yow da ngaa nar a jaamaarloog noon bi fajul ba wér door a dem fajul ba wér door a jaamaarloog sab noonu kon pas-pas yu yàqu yeeg biddaa yeeg njaaxum yi ñuy fas te fekk lu wérut laag yooyu yëpp faw nu raxas ko ba mu set wecc wecc ci sun biir ba mu wér ne noonu ay jullit lan ci seedeb alquran ak sunna su boobaa ci la sunu bennoo di amee ci la nuy mën a note suñuy noonu waaye su fekkee li fi njaxas a ngi ci suñ biir loo xam ne dañ koy nëpp nëppal noonu naan nañ ko bàyyi noonu rek ndax nit ñi mën a bennoo na wér ne bennoo gi amul bennoo gi amul te suñ demee ba jëmmi lu ne jëmm luy wane ne bennoo jot na bu boobaa ci la ñu xamee ne bennoo bennoo amul kon méngoo ak saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mënta ñàkk la bëgg waa këram muy ahlu baytam ay soxnaam ay doomam ay sëtam loolu lépp lu jaadu ci jullit bi la lu mënta ñàkk la wattandiku biddaa ak lépp loo xam ne lu ko nuru la lu mënta ñàkk la borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ne kullu <clears throat> illa alladina farraqu diinahum wa kaanu chiaan lasta minhum fi shay ñu tàqale seen diine def ay kuréel ñooñu day jaaruñu ci saw yoon ñooñu day jaaruñu ci saw yoon yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo waxal boppam ne kullu bidaatin dalaala bidaa bu mu mën a doon rek ak réer la kon faw faw yooyu yëpp ñu boole ko gëm ko ahlu sunna wal jamaa it bokk na ci seeni pas-pas maanaam gëm gëm ak tasdiq bi karamaati al awliya walli yuy borom bi tabaraka wa taala muy ñu baax ñi nga xam ne dañoo jaar ci siraatal la inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxsanun alladina amanu wa kaanu yattaquun ñi dajale iman ak taqwa ñooñu ñoom la ñu tudde wàlli yi ci lislaam ñooñu borom bi tabaraka wa taala dana leen dëgëral ci ay karaama karaama yooyu ba ci gën a rëy mooy njub parce que njub kat lu jafe la jaar ci siraatal mustaqim ci sa lépp sa pas-pas sa jaamu yàlla say jikko leen lu nekk nga di ko xool ci alxuraan ba mu wér nga door caa jaar loolu muy karaama bi gën a rëy ndax mooy jëriñ àdduna ak àllaaxira waaye teewut nag borom bi tabaraka wa taala dana dimbali dana dimbali wàlli yoom yooyu jamono yoo xam ne dem nañ ba fitna jot wala jamono nañ ba ba mu jot ñu war leen a dimbali mën na leen a indil loo xam ne lu nit ñi miinut la loolu ahlu sunna wal jamaa danañ gëm ni karaama yooyu am na waaye nag gëm yin lañ koy gëm woo xam ne du ëpp du yées gëmin wu yées mooy lan mooy taxaw fële weddi lépp loo xam ne xeetu secret la wala xeetu karaama loolu kenn du ko def jaaduwul wu ëpp wi mooy lépp luy jommale lu ne nga ne wàlliyu la nga gis xam ne bu génnee defe na ne kuy loxos ak kuy kuy wan nit ñi luñ xamut ak ngelaw luy dem ak ñëw lu la jommal lu ne nga ne kooku wàlliyu yàlla déedéet lenn ci boroom xam-xam yi day wax ne al imaamu Shafii boo gisoon nit ki muy naaw ci jaww ji wala muy dox ci ndox mi nee na bul ne wàlli la li fee xooloo ko ci alquran ak sunna xoolal ba xam nan lay jëfe foofu su fekkee nattu nga ko foofa mu dikk diis gann diis gann ci powaab alquran ak sunna xamal ne kooku wàlli yu waaye ma ngay naaw ca kaw ma ngay jaar ci kaw ndox mi te boo ko xoolee moo gën a sori nit ñi lislaam moo gën a sori nit ñi diine ak sell xamal ne kooku du wàlli yu kooku wàlli yu cheytaan waaye du wàlli yàlla comme ni mu amee awliyaa ur rahman dafa am awliyaa ur cheytaan hmm? loolu lu mat a bàyyi xel la lii mooy xaaj bu njëkk bi beneen xaaj bi ci topp nag comme ni ma ko waxee woon euh, dafa nekk ay qawaid yoo xam ne pour bayaan manhaj boobu la qawaid nag bu ñu ko wax mooy ay tënk yu gàtt yoo xam ne daf lay résumé lu rëy rëy mu dikk jox la ko joxin wu gàtt moo tax duñ xóotal lool duñ sori itam ci ci ci leeral gi waaye li am solo mooy tudd qawaid yooyu ngir ñu mën cee xam manhaju ahli sunna wal jamaa wala al manhaju salafi mooy lan ci manhaju salafi yi dañuy wax ne masaadirul aqida al kitab wa sunna kooku nga xaayida bi ci jëkk parce que fan lañ koy jëlee wala diine sax fan lay jógee ci ñaari mbir rek la mën a jóge alquran ak sunna diw ku baax la jekki na ba mu yàgg farlu na doolim na ci loo xam ne buñ ko seetee duñ ko gis ci alquran ak sunna loolu sañoo koo jël na nekk ci alquran wala mu nekk ci sunna door a tudd nekku ci bunta tudd diine mukk mën naa nekk nag loo xam ne xeli doomu adama yi mën nañoo dem ba rafetlu ko jël ko ñoom di ko jëfe waaye bu boobaa du diine du alquran du sunna ginnaaw du alquran du sunna mënta nekk diine masadiru al aqida al sunna nit ñi lu bari ci xeeti réer yi am wala xeeti ay bidaa yu sosu tomb bii moo ko indi moo di ñàkk xam fa alquran di jóge fan la diine di jóge lii ngay jël yow di ko pratiquer di ko jaamoo yàlla fan la war a jóge jamono yoo ko xàmmeewut jamono yoo ko xàmmeewut yu ne xamal ne muccagoo ci biddaa da nga gis ku baax koo xam ne wóolu nga ko jàpp nga ne wax dëgg yàlla kii moom ak jaamu yàlla am nangam nangam mu jékki-jékki gént dara ne leen def leen nangam ak jaamu yàlla la jaamu yàlla googu nekkul ci alxuraan nekkul ci sunna ngeen xëy def ko amaana ngeen taxoo ko sax ba faaw di ko def te fekk ci gént la jógee jógewul ci alxuraan ak sunna kooku njuumte la alxuraan ak sunna mooy source bi nga xam ne ci la diine di jóge lu dul loolu munta am ndax alxuraan la yàlla wàcce ci bi yonentam ne ko leeral ko mu leeral ko ba mu àgg mu ne ko diine ji mat na kon demal mu door a faatu ca Arafat ca aj ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon aj jóge ca dundaatut lu bari ca la borom bi tabaraka wa taala wàccee al yawma akmaltu lakum diinakum tey jii laa mottali seen diine ji wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina diine jii nga xam ne mooy diine tey jooju laa nangu mu doon diine waaye lépp loo xam ne noo ngi koy tudde diine ngir rafetlu ko ngir wóolu kanu ko jox di ko jëfe tam wér ne bu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam del si woon tey moo ci saxaabaam fekk nu nekk ci biir loola day laaj waaw ñii ci luñ nekk xamal ne loolu bokkul ci diine diine yonent bi xam na lépp saxaaba yi xam na lépp lépp luñ ci dolli rek nun noo ko ci dolli ngir suñ bànneexu bakkan wala suñ intérêt yi bopp wala suñu rafet njort waaye fekk na nekkul ci diine ñaareel ba maxtulifa fiihi min umuri diini fa maradduhu ila allahi wa rasulih lépp loo xam ne jooyoo nañ ci ci diine ngir jooyoo googu mën a dañ delloo dellu ci alquran ak sunna moo koy dindi ñetteel ba masailu usuli diin wal aqida tawqifiya lépp lu aju ci wàllu pas wala mu aju ci tëraliini diine loolu li ñu tudde tawqifiya la maanaam mëneesu boroom xam-xam bi munta farlu ba mën cee dolli dara na ko yàllaa ko yonentam bàyyi woon noonu la ko sañ a bàyyi ñeenteel ba almarjiu fi fahmi nusuus al aqidati alsaxaaba wa salafu saalix suñ bëggee dégg diine dëgg fa nuy dellu ngir mën koo dégg faw nu jàng taarixu saxaaba yi ndax ñooñu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon yar ñoo fekke woon bi alquran bi wàcc ñoo fekke woon ba yonente bi di wax xadiis yi sallallahu alayhi wa sallam lan moo taxoon mu wax ko kon ñi ñooñu ñoo dégg diine faw nga dellu ci ñoom ngir dégg alquran faw nga dellu ci ñoom ngir dégg sunna kon jàng histoire saxaaba yi mënta ñàkk seen siira juróomeel bi man nataqa bi shahadatayni wa azhara al islam fa huwa muslimun ma lam yanqud shahadata képp koo xam ne wax na laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah seede ñaari seede yooyu kooku jàpp leen ne jullit la li feeg gisu leen mu def loo xam ne lu ju luy firi lislaam la lislaam nag dafa am yu koy firi comme ni nit ki di jàppe ba àggal am jàppam toj nit ki di wax laa ilaha illa allah ba àggal laa ilaha illa allah ja toj par day toj day toj lislaam comme ni nga xam ne doon dem ca wanaw dafay toj njàpp su njàpp tojee nag dañuy laabaat moo koy delloosiwaat lislaam it su tojee tuubaat delloosiwaat ci lislaam bàyyi la nga doon def loolu moo koy moo koy delloosi juróom-benneel bi laa yajuusu takfiru ahadin min ahli alqibla bi danbin gayri naaqidin liltawxid daganul ci benn jullit alictisaamu bi aqidati ahli sunnati waljamaa amrun mutaayin jàpp ci pas-pasu ahli sunna waljamaa kooku farata la ci ñëpp spécialité bi dafa doon loo xam ne ay kuréel dañoo nekk ñu naan ahlu sunna yi ñëw yi ñëw yi da ngay tànn ba la ci neex déedéet farata la ci képp koo xam ne xas na tuddoole ak jullit la mu bokk ci ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa bu ñu ko waxee mooy ñu topp almanhaj salafi mooy ñi nga xam ne seen diine lépp ci alquran ak sunna lañ dëggale am na feneen lañ ko jëlee loolu yépp la war bu ko def moo la war bu ko defee moo la war loolu ñu xam juróom-ñetteel bi ahlu ahlul manhaj salafi man kaana ala misli ma kaana alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sahaba ilman wa amalan bu ñu wax ahlu sunna wal jamaa wala ñu naan ahlul manhaj salafi liñ jublu ci ñooñu mooy ña seet la yonente ba nekkoon ak i saxaabaam ñu jël loola nekk ci wàllu xam-xam ak ci wàllu jël ahlul manhaj salafi abaadu nnaasi an shirk wal ibtidaa fi ddin juróom-ñeenteel bi moo di ñi nga xam ne ñoo topp manhaj salaf ñoo gën a sori doomu aadama yi bokkaale ak biddaa moo leen kuréel yi am ci adduna yi topp alxuraan ak sunna ñoo leen gën a sori biddaa ak bokkaale ba tey fukkeel bi al manhaju salafi mabnaahu ala tawassuti wal ictidaar manhaju salaf muy jaarukaayu saxaaba yi ak ña leen topp li muy firi mooy digg doomu maanaam yéesu ëpp li ñuy wax teengal diine dañ koy waxtaanee bu baax a baax dañ koo sori seen diine moom lu yemb la bu dee ci wàllu pas-pas lu yemb la bu dee ci wàllu jaamu yàlla lu simple la lu yomb la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalu kenn lenn loo xam ne da koy fitnaal moo tax diine diine wasat wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan dañ leen a def ngeen nekk xeet woo xam ne mu jik dóomu la léeg-léeg nag lii dañuy seengal seengal loo xam ne dafa ëpp mooy ñàkk a xam da koy faral di indi yées yées ba ab yooyu itam fi nga xam ne fi lañ bëggoon nga àgg fa li koy faral di indil mooy ñàkk xam-xam wala ñàkk yaru diine yaru bi nga xam ne mooy di jaar kon faaw xam ak yaru ñaar yooyu mënu da ñàkk ci diine fukkeel ak benn moo di al manhaj salafi mabnaahu ala tasabbut fi riwaaya wa taxaquq min al dalaala ñi maanaam jëndi mën haju salaf ci lan la tegu moo di faw li ñu tudde riwaaya mu xadis bala ñu koo jëfe danañ gëstu ba xam fan nga wéram tool ndax kat jëfe xadis bu wérut bari na lu dolli le ci diine te fekk looloo ko ci bu wérut boo xam ne dañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax te fekk ko bari na lu dolli ko ci diine te fekk moo ko ci ñaareel ba gannaaw buñ gëstoo ba xam ne lii wér ne yonent bee ko wax ñu gëstu ba xam lii ñu wax mooy lan dëgg dëgg loolu nag waxoon naa leen dellu ci saxaaba yi moom mooy ci bind alwalaau fi lmanhaji salafi lilxaqi waxdahu ñi nga xam ne dañoo topp manhaji salafi saaleh seen téete seen téete mooy dëgg seen téete mooy dëgg su ñaar doon werante kenn ci la bokkal kuréel kenn ci la bokkal mbooloo kenn ci la bokkal ndey ak baay sax waaye bi ñu waxee ñoom ñaar xam na ne dëgg al sax ci moom dëgg la àndal ñooñu ñoom dëgg rek lañu àndal waaye ànduñu keneen kon melokaan woowu war ngaa jéem a yar sa bopp war ngaa jéem a góorgóorlu insha allah ba def ko sa bopp moo di lépp loo xam ne dëppoowul ak diine euh, dëppoowul ak dëgg loolu bu la ci kenn ci almanhaj salafi laa yubtaxalu naasu bima laysa fi lkitaabi wa ñi topp mën a gis salaf topp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci saxaabaam ci seet nit ci baax na ak baaxul amul yeneen seetewukaay yuñ yor yu bokkul ak alquran ak sunna amul yeneen seetewukaay da nga gis nit ñi ci yi ñuy dund ci bare bari pour nit ki baax yeneen lañ koy seetee jullit bi mën nay ànd ak yow di julli ci jàpp di di di génn nga jàppe ko rek ne benn waaye li seen gëstu woo ba xam ne moom yéen a bokk benn kuréel bu ngeen bokk nga doon ah yow kat saa waay léegi mbokk la ngeen doon ci loolu islam bu noonu nattukaay yi ñu am pour ne nit ci baax na ak baaxul mooy alquran ak sunna léeg-léeg nit koo xam ne bu nit ci baaxee ci moom di ko defal lu baax bu jël di ko jox mu ne diw moo fi gën seetaatut leneen nattukaay bi ñu yor moom mooy da koy jox waaye fekk loolu du nattukaay joxe dëgg la baax na waaye nag def na yeneen sa yaram kon nattukaay bi mooy nit ki ak tënkoom ci alquran ak sunna ci almanhaj salafi ba tey laa maasuma illa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kenn doomu moo nekk maasum suñ musal ci njuumte suñ musal ci njuumte musal ko ci ndëndite mu juum lu mu def lu nekk noona la kooku mooy yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam keneen ku dul moom ku mën a doon ak loo baax baax ak loo kawe kawe sa borom bi tabaraka wa taala yàlla joxu la dara ngir dina wax yi nga xam ne soo juumee da lay wax ne déedéet du noonu dafa teg loolu loolu tax moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne mu ngoog doy leen ko lu def def leen parce que lu mu def lu ne noona koo ku nekk teg ko ci place boobu boo xoolee rek da nga gis du yonente boo xoolee rek gis boo xoolee da ko gis ci jëfub buñ la nekk la istuwaaram bu da nga xam ne bi sallallahu alayhi kon ki nekk ku mucc ku mucc kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mucc bi nag mooy tax nit ki nekk royukaay royukaay boo xam ne dañ lay wax ne lu mu def defal lu mu bàyyi bàyyi li fekk néewuñ la yamal foofu rek bunt foofu dañu ubbi ijmaau as-salaf as-saalih xujjatun sharaiyatun mulzimatun liman baadahum salaf as-saalih muy saxaaba yeeg taabi'un yi ak ñañ yar ci dëppoo masala moo xam ne seetlu nga ko ci lislaam yow ndonga li jàng bàyyi loolu xel seetlu nga ko ci lislaam gis nga ne saxaaba yi juyoowuñ xamal ne kooku lu war la bu dee la ñuy fas fas ko war na bu dee la ñuy jëfe ñu ko war na bu dee la ñuy bàyyi itam bàyyi ko war na ndax diine la diine la loo xam ne saxaaba yi dëppoo na ci moo xadis bu taxaw wala aaya bu taxaw ñoo yam ndax ñoom duñ dëppoo ci luñ dëppoowul ak alquran ak sunna loolu ma ta bàyyi xel ahlul manhaj salafi la yaxkumuuna ala man xaalafahum illa bil ilmi wal adl ñi topp manhaj salaf bu ñu atte nit ki atte boo xam ne dëppoowul ak xam-xam dëppoowul ak maanu lu ñu wax ci nit ki lu mën a doon seede dëgg la doon nadratu ahli almanhaj alsalafi ila almubtadia taxtalifu an nadratihim ila man ulima kufr ahlu sunna waljamaa bu ñu topp manhaj salaf duñ jël ñun jiwóor ñëpp jox leen benn atte am na ñoo xam ne ci bidaa lañ nekk am ñoo xam ne nekkuñ ci bidaa yeneen mooy yàlla lañ nekk am ñoo xam ne ci kéefër lañ nekk ñooñu beneen atte lañ yor bokkuñu ak ñu nekk ci kéefër kon yooyu lu mat a xam ne la ba tey al indiwaau taxta liwaa al mubtadia muxaalifun li manhaji salaf ki nga xam ne xam na nekk mën na di ahlu sunna wal jamaa amatul amatul droit amatul sañ-sañ jullit bi sax la ñuy wax amatul sañ-sañ ci jikk bi làqut ci biir bidaa wala muy ànd ak waa bidaa bi nekk ko ko war a leer nag ba tey ad difaa an al bidaa wa ahliha muxaalifun li manhaji salaf défendre biddaa défendre nit kuy dund ci biir biddaa loolu du mën a jël dañu xam bokk na ci yooyu lamdu ahli sunnati wal jamaa aw bughduhum aw tansiqu minhum maasiyatun qad tasilu ila al kufr waliyaadu billah xas xas ñi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ci alquran ak sunna di leen wax wax ji di leen di wala nga di leen suufeel wala ngay wax ci ñoom wax yoo xam ne pour génne leen ci liñ nekk la loolu musiba la mooy yàlla la boo xam ne amaana mën naa yóbbee nit ki sax ba yóbbu ko ci kéefar te du ko yëg loolu lu tax nit ki léeg-léeg mu mere nit ki di ko tere loo xam ne di ko tere loo xam ne moom dafa yëgul ne lii nekk ci lu baax dafa ko mu koy tere lu bon la loolu la jublu woon waaye nekk li muy tere lu baax la foofu mën nañu jàpp ne dafa juum biram mën naa wayal waaye léeg-léeg da ngay gis koo xam ne da ngay ñëw ne ko bokkum jullit bi sa doom bi di juuma góorgóorlu di muuru doom bi jigéen bi di juuma góorgóorlu di muuru nga di ko sonal di ko dóor di xotti buuraayam bi xanaa xamu ne li gën a yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mun nga faalewu ma lool boo may soxla maa ko jur li maa koy def lu mel ni kii mooy boo xam ne day xeex sunna ku taxaw na di xeex sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mën naa yóbbu nit ci parce que mosu ñu di kéefar ni borom bi tabaraka wa taala wàcce woon aaya bi bi ñuy dem ci xaswatu Tabuk foofu borom bi tabaraka wa taala wax laa taxtadiru l-yawm faqad kafartum ba'da imaanikum ay nit yoo xam ne aaya dafa wàcc ne ñi ay yéefar lañu ñu ñëw di jéggalu di tuub yàlla wàcce alxuraan ne du nangu tuub ñooñu lan lañ waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd na ak saxaaba yi ñu génn ñu génn di dem Tabuk bi jihaati fi sabilillah am gaa yu nekk ci biir di waxtaan di makk makk di ree naan ah suñu gaa yi dañuy gaa yi mën a jàng alquran xaaral tey bañ àgg bañ jaamaarloo yéefar yi nga xam ne ñooy rome yi tey danañ gis ñu leen ëpp doole dàq leen a xeex yàlla na leen weddi ngeen ñu daw di ñëw li tuub mu ne laa taxtadiru bu leen jéggalu parce que kafartum waaye weddi ngeen génn ngeen lislaam ah, nit ñi nit ñi jamono yi nekk yaa ngi dégg ñu wax ne yëpp loolu ci biir ah la koo xam ne nit góorgóorlu nekk nga di ko joxoñ di wax ci moom wax ñaaw joo xam ne yow li ngay wax boo ko seetloo sunna ngay wax ñoo wax ko waaj ah waaj moom waaj rek la waaye li tax nga di ko fas ginnaaw boo ko firee li muy firi mooy loolu lislaam ak santaane yooyu léegi yaa ngi dal ci kaw lislaam ko yóbbu léegi léegi nag yëpp kon ay biir la yoo xam ne moo tax wattandiku la أهل المنهج السلفي يفرقون في المعاملة بين المستفيد ببدعته وبين المظهر لها والداعي إليها yitaf manhaj ahlu sunna wal jamaa muy manhaj salaf comme ni ma la ko waxoon léegi yemalewul nit yëpp ci jëflante léegi lañu gis koo xam ne mi ngi ci biddaa sax waaye waaye biddaa bi li ko ci yóbbu mooy ñàkk xam biddaa bi li ko ci yóbbu ñàkk pexe léeg-léeg loolu lay tontu boo ko laajee biddaa bi mi ngi ci waaye léeg nga sax ko ci nëbb bu bëgg feeñ ku mel nii wax dëgg yàlla dañuy jëflante ak moom bokkut ak koo xam ne dafa taxaw ne tënk di woote ci bidaa ah di delloo fudd ñëpp ñëpp di dégg ñooñu bokkuñu su ko defee lu mel noonu itam lu ma ta xam ne la bu leen leen jox benn atte bi ahlul manhaj salafi yad'una li ahli bidaa bil hidaayati wa rahma maa lam yu'lam kufr ñi topp manhaju ahli sunna wal jamaa dañuy ñaanal ñi nga xam ne dañoo nekkul ci ngir moom dañoo toppul alquran ak sunna ngir lu leen ko teg lu mu a moo xam waaye dañ leen di ñaanal yàlla bindi leen di leen di ñaanal itam yërmaane moo tax borom xam-xam bu mag Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya wax ne ahlu sunna aarafu naasi bil xaq wa arxamuhum lil xalq ñoom ñoo gën a xam nit ñi waaye ñoo ëpp yërmaande itam ci nit ñi kon di xam dëgg borom bi tabaraka wa taala baaxee ko mu jaar mu jaar ci bu mu jàpp mu jàpp dafa góorgóorlu dafa tàkku xam-xam dafa def nii dafa jaar ci loolu moo tax mu mel ni déedéet borom bi tabaraka taala moo la baax boo xoolee sa bopp xool sa judd da nga gis ne jaaroon na ci ay diisaan ak ay jaaxum yoo xam ne bu neexoon borom bi tabaraka taala mu bañ a nekk kon boo gisee beneen jullit boo xam ne ñu ngi nekk ci nattu am yum defe yoo xam ne moo xam ñu ci sox soxla moo xam ay bidaa la moo xam ñàkk a xam la moo xam lu mu doon kooku li war a dox sa diggante ak moom mu yërmande yërmande gis nga lu baax ci moom bu woon kon ko moo gën lii mooy li baax mooy li baax lii la ñu war a jëfe lii war ñu koo la ko yàlla bëgg lii la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëggee ci melokaan wu mel noonu noonu la ñuy dunde ak ñoom ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon wax ne ci boppam digganteem ak xeer yi ni mu mel mooy nit koo xam ne dafa toog ci ab làmp ab taal am ay lëppalëp yoo xam ne dañuy naaw di dal ci taal bi bëgg a dugg ci taal bi mu di leen tëj mu leen wax bu leen dugg xëy noonu la cest à lim leen di woo di leen ci dugal yërmaande la am ci ñoom dafa gis ñu màbb di góor di jëm koo xam ne bu ñu ko bàyyiwul sawara la leen di yóbbu mu di leen fekk di leen wax di leen jaar ci yoon yi ci yoonu sawara la jaar leen fii fii mooy yoonu ajjana ki nga xam ne dafa ñëw gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di woote loolu rek moo ko wax yërmaande ci nit ñi di leen woo di leen wan li nga xam ne moo baax di leen woo di leen wan li baaxul ndax ñu mën ñàkk a tënku nag ci mën nañu ak salafu salax dafay am ay mbir yu bari yoo xam ne daf koy indil nit yooyu na ci ñàkk ittiwu tawxid tawxid ku ko ittiwoowu yaa ngi ci nit dafa war a wéetal borom warta am mukk ay yàlla yàlla moom dong mooy yàlla lim yeyoo moom dong moo ko man moom dong man lim xam moom dong ko xam pas-pas bi mu wér seen diggante ak seen borom ñaareel bi ñàkk jaar ci yoon woowu day tax nit gis-gis gi mu a jox xam-xam du ko ko jox xam-xamu sariya def ko war a jox waxtu jàng ko su fekkee ndaw nga su nekkee mag nga foo mën a toll amul benn as bu ñu toll boo xam ne dañuy wax ne jàng nga amul saxaaba yi dañ doon dugg ci lislaam fekk ñu ngi am ay juróom-ñaar fukki am lu ëpp loolu ah biñ dikkee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suuf jàng ci biir li ñuy wax ci tarjama Salman al Farisi xam ne dañ lay wax ne kooku ñu judde woon fan daanaka ci ci histoire xanaa ca nitu noox lañ gëj a gis ñu gudde noonu fan Salman al Farisi dañ lay wax ci tarjamaam ne dund na ñetti téeméeri at dund na ci diine yi jiitu woon jàmm ji ci nekk dund na ca ba doonte ñu jiit waaye teewul ñu ngi doon gëstu di seet ci melokaani téere yëpp gisoo muy téere yahuud bi melokaanu yonent bii mujj wàcc ci loolu la doon wëre di wër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba gis ko bi ko gisee ndax boobu moom xamul ko yonent bi waaye gis na ci seen téere yëg na kooku dana gàddaay bu gàddaayee dana ñëw ci dëkk boo xam ne nii lay mel nii lay mel nii lay mel wax garab ya fa nekk ak montagne yaak yëpp mu ñëw ci dëkk boobu ñu laaj leen ndax amul ku fi gàddaay ñu ne ko am na day ci jóge mbokk ci waa Quraysh ci jóge Màkka gàddaay ñëw fii mu ñëw wër dëkk bi xool bi mu daataan bi yonente bi dafa xool dëkk bi montagne yi yor ay téeréen di xool ba gis ne dëkk bii dëppoo naag dëkk bi ñu seet mu ñëw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen fii la mu ne ñu ne ko waaw bi ñu dikkee li mu def dafa daal di yëkkati mbubb yonente bi sallallahu alayhi wa xool ba gis tampon bi ñu waxoon ne kay nekk yonente boobu am na lu ñu tudde xatmu nubuwa ak tampon boo xam ne ci gannaaw ba lay nekk mu ñëw xool daal di ko tëj bi bi ñu ko ci bitee mu ñëw laaj leen lu ngeen di duggee ci lislaam mu wax ko ko fekk loolu lépp xamoon na mu daal di ne ashadu an laa ilaha illa allah wa ci lislaam fekk am na ñaari téeméeri at ak nangam moom Salmaan al Faarisi jamono yooyu lan na daal di jëkk itte woom jàng foofu li ma la bëgg moo di amul at yoo xam ne da wax ne su ma ko amee mënatuma jàng loolu du lay ñaari téeméeri at ak nangam mu door dugg ci lislaam door a tàmbali di jàng am na ci saxaaba yi ñoo xam ne ku mel ne Safwaan <coughs> ibnu Saabit juróom benn juróom benn fukki at ci euh, am na benn borom xam mag bu bind téere boo xam ne daf ko bind ñi nga xam ne dañoo dund téeméeri at ak ñaar fukki ci saxaaba yi juróom-benn fukki yi ci gréer juróom-benn fukki yi ci lislaam te ànd ak at yooyu yëpp buñ duggee ci lislaam bi ñuy gis ci boobu mooy jàng seen diine xam ko da nga daan gis ci jóge fële suuf dikk am ci yonente bi sallallahu alayhi ñaar fukki fan képp daal di doon borom xam-xam dellu bu demee dugal aw nitam ci lislaam nekk seen nit ngir xamal lislaam kon mbir mi doonut loo xam ne lu lu jafe loolu la koy jàngale ñu yombal ko nag ci ci kanam nit ñi ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kat yoru woon yoo xam ne dañuy toog ci kanam di digte mu naan leen di leen jàngal par benn baat daf leen di wax ñu xam leen di wax rek ñu xam mu leer naa ñu ci seen bopp ñu xam ne yàlla dong mooy yàlla moom mi mooy yonente moom la ñu war a njëkk alquran ak sunna mooy diine daal di jàng alquran ak sunna dem seen yoon dundi seen diine lu yomb la insha allah ba tey itam ñàkk soobu mën na boobu yu addi ila tasaahul fi amri bidaa wa mbirum bidaa woyofal ko baaxut kenn war ko woy lépp lu bokkul ci diine waru ci bokk war ko ci diine bu dal xalaat ba tey itam ñàkk a topp mbirum salafu saalax seenu yoon dafay indi ak ko jaar ci yoon woowu nga xam ne mooy yoonu alxuraan ak mooy boole nit ñi moo leen di jox boole ñàkk leen a topp itam ñàkk jaar ci alxuraan ak sunna dafay yóbbu nit ñi xeetu fanatisme boo xam ne li muy mujj indi mooy day mel ne lislaam ay parti la te fat kenn ku nekk sa fàttu bopp boo xam ne da ngaa rek ne bii rek mooy lislaam deedu lislaam li nga war a dëkk ci alxuraan ak sunna yi nga xam ne ko waate lépp ba tey itam dañ yóbbale ci ila idaati al awqat fi daawati ila umurin juz'iyya ñàkk a topp mën a gis salaf day tax nit ki même daawa buy woote ci lislaam du xam fu muy tàmbale du xam fu muy tàmbale fi ñu tàmbale mooy la gën a rëy fexe ba ñu wéetal borom bi tabaraka wa taala nit ki wéetalee yàlla ba mu xam ne yàlla dong mooy yàlla ñu xamal ko ne ko kii mooy royukaay bi ñu yonente bi sallallahu ñu xamal ko ne ko diine ci alquran ak sunna kees lay jóge tàmbale nag di ko jàngal yeneen ma yu sew yi ndax kat tawxiid bi moom ñu wéetal bi mooy loo xam ne bu ko jàmmoon ba ca noppi faatu ci loolu kat alhamdulilah mën nañu rafet moom yoon te mun kenn ci yóbbu tawxiid yóbbaale tawxiid ñu wéetal yàlla mucc ci bokkaale yóbbaale ko ëllëg li tax ci yaxruju min annaari man kaana fi qalbihi misqaala xubbatin min xardalin min iman ku yóbbaale dara ci ngëm yàlla ci tawxid ëllëg du sax mu sawara bu defoon bàkkaari adduna bi ci biiram ba tax ñu dugal ko sawara yëpp bés li ñëw borom bi tabaraka wa taala dana ko génne dugal ko àjjana ngir tawxid boobu mu yóbbaale kon kooku mooy li ma ko yóbbaale léeg-léeg nga gis ñoo xam ne bu ñu woote bu ñu yeneen la ñu waxtaan ci jikko yi rek dangay ba rafetal seen jikko te diggante boo tekkee lam ñu ne la tekki lam bi ñu def koy def boo dee dox ñu ne la ah pas-pas moom baaxul te fekk xooluñu sa pas-pas yi na yooyu wér ba àggal yeneen yu baaxul yi ci def bu pas-pas bu wéree nangu na ne alxuraan ak sunna wér du ngeen du ngeen xëccoo ci yeneen yi ci def du ngeen ci xëccoo ndax xam ne léegi leen digal ak tere ci borom bi tabaraka wa taala lañ jóge waaye soo dikkee tàmmalee moom ci suuf te moom nangoogul ne alxuraan ak sunna mooy àtte lay da nga koy jox dafa dul doy ah ba ñëw ne ko tax baaxut ma nga yow tax baaxut parce que man bëgg naa ko te sama alal la sàcc moom dafa ma ko neen kooku boo nekkoon yàllaa ko tere pour yonente te naan loolu la mu yàlla am na yërmaane fekk na ay jaaro moom fa nga war a jaaral moo tax mbir mi mbir mi day tàmbalee ci masal yu mag moo tax euh, kunu rabbaniin boo demee ci ni ko boroom xam-xam yi di firee borom bi tabaraka wa taala daf leen jéem nekk ay rabbaaniyuun rabbaaniyuun mooy lan borom xam-xam yi dañuy wax ne man yu rabbi ala kibaari almasaili qabla digaariha mooy koo xam ne buy yar nit ñi di leen jàngal day tàmbalee ca masale yu mag yi door a ñëw ci masale yu soxla waaye ndaw yu nekk ci suuf waaye boo dikkee tàmbalee suuf sii joo xuloo werante ñooyu rek su la sa lu bari sa dund di jeex te fekk ñi ngay jàngal di leen yar euh, la nga bëgg ci moom day jàng ñàkk a jàpp ci manhaj boobu itam yu addi ilal xuluw fi diin jàdd jàdd manhaj boobu day tax nit ci xeexal diine comme ni ma la ko waxoon ci gannaaw day tax ëppal ñàkk cee jàpp ba tey yu addi ilal bagyi wali atidaadi ala wali atidaai ala ahli alxaq ñàkk a jàpp ci mbir moomu day tee maandu ñàkk a topp yonent bi ak ci saxaabaam day tee nit ci maandu léeg-léeg nga gis nit koo xam ne ñamuy wax ci ñoom di leen xas di wax ci ñoom wax bu ñaaw wala muy jëf ci ñaaw suñ ko laajee loolu jotee bi moom ñu laa wax lenn lu dul euh, dañoo gëmut li ma nekk loolu doy daw lay kon <clears throat> ñàkk jaar ci ngir moomu ba tey itam day tax nit ki du teeylu yéefarloo nit yéefarloo nit nit ahlu sunna wal jamaa ñi gën a teey ci lañ bokk wala ñoo atte nit ki ne yéefar la ku ne danañ ko jaaral ñu bari ñi leen xamul nag dañoo yaakaar ne ñoom dañoo taxaw ko ne rek koroo di i loxo kuñ génn ah kenn yéefar kenn yéefar kenn ñoo gën a sori nit ñi ndax dañoo gëm ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne ku ne nit ki ab yéefar la benn mu doon yéefar wala yow nga doon yéefar moom du ko gaaw wax nit ah dañoo yor xaayida boo xam ne day wax ne nga juum nga juum ci nit ki nga defe ne jullit la fekk yéefar la moo gën nga juum ci nit ki nga def ko yéefar fekk jullit maanaam dañoo gis ak yéefar waaye mi ngi jëfe jëf yoo xam ne lu na jëfe jullit nga ne ah kii de jullit la jëf leen teg moom jëf leen ci jullit fekk yéefar la loolu njuumte moo gën a woyof nga ñëw fekk koo xam ne jullit la yow nga ne yéefar la kooku njuumte bu yéere koo xam ne kooku kanam borom koo koy laayee moo tax sabat ñu koy dim ñëwee ca yéefar ba yor jaas ja di ko bëgg a rey waaja daal di wax laa ilaha illa allah mu daal di koy sor jaas ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nettali ko ah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko qataltahu baada ma qaala laa ilaha illa allah rey nga ko te wax na laa ilaha illa allah mu ne ko waaw waaw daf koo wax rek pour pour mucc mucc ci jaasi mu ne ko maada tafalu bi laa ilaha illa allah yowmal qiyaama bu yowmal qiyaama nooy def laa ilaha illa allah jooju mu wax Usaama daf ne bis boobu li ma doon ñaan li ma doon ñaan mooy fekk duggagu a woon ci lislaam ndax ma dugg ci lislaam tàmbaliwaat maanaam li ma doon ñaan yàlla kero mooy na sama lépp far amatuma yool amatuma bàkkaar ndax ma mën a tàmbali jëf li si am lu rëy lu ma ko teey ba tey ah, boobu ñu ci jaar eh, benn eh, da ngay ne dafa def effort am yàlla dogal mu juum kooku déggal nañ ko jéem a góorgóorlu jéem a xam dëgg parce que bu nekk def na ko jéem a góorgóorlu xam ne amut lenn loo xam ne ci bànneexu bakkan wala fanatisme wala lenn moo ko gàllankoor waaye jéem naa xam dëgg mënu ko xam lam jàpp ne mooy dëgg def na effort am waaye foofa la mën a yem borom bi tabaraka wa taala du yem kenn lu mu àttan du yem kenn loo xam ne lu mu àttan may sandiko laahu nafsan moo tax ci suñ liggéey yi ci biir liy waral liy waral léeg-léeg ñu dem ba jëmmi jamono ñu defe ne ndaw ñi di ñëw di góorgóorlu ci sunna dañoo contre mag ñi wala dañoo jàpp ne mag ñi ñëpp ñëwoon ci diine mag ñi lu tax béréb bi ñuy ci wàllu gëstu boo dajalee téere yi fi nekkoon yëpp ci lislaam xool mag ñi liñ doon dund ci wàllu histoire lan nga fi jële ban résultat lañ ko moo di ñii de liñ gisoon ci xam-xam jàng nañ ko dégg nañ ko loolu lañ ko jëf loolu lañ ko jëf rafet njort it su dajee nit ko jaanam moom waaye waaye doon nañ dund ci jamono yoo xam ne ñoom di jamono yu jafe moo xam ne nangu na ko wala nanguwul moo di jëmmi téere ak suuf yi colonial bi lu mu mën doon na ko def ngir téere lislaam bañ a ak ñi réew ak réew yi nga xam ne colonisé nañu leen ba léegi boo demee ci office national da nga gis ay lettres yoo xam ne pour contrôler ay téere xoolal téere sàngam yow mi nekk frontière bi diw sàngam diw duudu seet diw sàngam xoolal téere sàngam ba xam war naa mën a dugg ci wala wërta mën a dugg yu mel noonu la ñëw téere bu ñu autorisé bu dugg bu ñu autorisé bu ñu téye ko dajale ba mu neex leen ñu sànni ci tax ñu wala ñu def lu leen neex kon téere ya doon jógee sànku di jàngale yenn njàngale yi ci alquran ak sunna téere yooyu yu bare bare bare bëri tubaab yi dañ ko doon téere kon kooku gàllankoor la boo xam ne su fekkee ne dem nañ ba jëmmi jamono àdduna ubbi ko ne lépp xëttaloon na sax kenn ku nekk lenn lu nekk mën na faa àgg yow ndaw li ñëw ci gannaaw ma ñëw rek xool ne man gis naa ne sama baay kat man jàngoon na aw njàngam fii la yemoon jëf yi nag sunna doon na ji ma góor loolu itam kàttanam fii la yemoon ma ñëw ne man ah lu ma mën a jàngoon doon addunaa li ci biiram doon te gis naa addis yi bu yoo sax ak lii sama bàyyi ne ah man kat li sama bàyyi nekkoon loolu rek doon te wute naag bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ak réer la laa chaque ne ak réer la yow bu sa bàyyi nit yi yow da am da nga am yaraan bu ëllëgee bu ëllëgee danañ la laaj ndax yow ci sa bàyyi lañ yónni woon ci yow wala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañ yónni woon ci yow te bu boobaa da xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo demoon ci yow waaye yéen ñu ñoon dara ci yow kon ñële bu fekkee seen jaan wàcc na yow pour sa jaan wàcc boo dikkee taxawal ci kaw li ñu doon def ñoom jàng ko ba xam ko waaye bul tax say bët jàngal gëstul xam-xam jàngal xadiis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal alquran nam gën a yaatoo ngir nga mën a gis gis xam ne lépp eh, li tolloo ko jamono doon ko bu ëllëgee ñeneen ñëw sa gannaaw ñoom itam gën a góorgóor lu yëf yi gën a fëttaloo ñu raw la ñoo yem fa nga yemoon te loolu kat buñ seetee dana ko gis wàllu adduna bi jëfe wàllu diine ji rek lañ ko nanguwu waaye wàllu adduna bi boo xoolee baay ak maam lañ nekkoon nun nangu nañ ko weer bu dee néeg néeg néegum ñax lañ yoroon dëkk den ak bi day di ñëw nekk ci néegum ñax jëm bu nekk war koo fot ànd ak bu topp sëb la sant boo amee loolu yow yaay borom bàtt jëriñ toog lu ëpp ci dem ba jëmmi jamono jamono di dox ci wàllu adduna ba lu bari ci nit ñi léegi néegum ñax buñ ci tëddee dafa ne war a tabax dafa ko ngir mu a ji dangaa a yokk ko ah, nga nangu ne adduna daal moom par nangu naa avancé ndax fa maam ñoom toll woon yëf ya la toll woon yëf yi gën naa yaatu léegi nan sotti sunu dundin loolu yëpp nangu nañ ko defe naa wala ba tey am na ñuy aji di di wari sax asa dugub ji dafa naa amatul loolu waaw kon léegi nangu nañ loolu waaw lu tax mbirum diine mi kon nag loolu duñ ko nangu ñaari toujours loolu mooy indi werante yi nit ñi ngay waxal dañuy dul comprendre dañuy defe ne kii kat ginnaaw mi ngi ñëw di wax loo xam ne wala muy jëfe loo xam ne bokk te li mag ñi doon defe kooku daal kontal mag ñi déedéet dañoo tabax ba nga xam ne fa la mag ñi yemoon insha allah di jiima góorgóorlu di ca dolli te noonu ñu jàpp ne ñoom ci seen jëmmi bopp doon ñoo del ci tey jàkkaarloo seen doom yi seen sët yi di góorgóorlu ci xam-xam ak jëfe duñ leen yedd mukk ci loolu loolu moom suñu rafet bopp moom àgg na foofu moo tax yu mel noonu toujours euh, ñu ma ko bàyyi xel la wallahu alam dafa naa ne jël nañ lu bari ci waxtu euh, ma xamul waxtaan yi day jeex danaa julli bi baaxala dafa wala ñu toogaat tuuti gannaaw bi ñu door a dem ala kulli xaal euh, waxtaan bi jeex na foofu asalullah li wa lakum suluukunaa min salafi saalih wa sabat alayhim ala hatta al mamat wasala allahu wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain ñu ngi jéggalu ci xaw be eh, guddal tuuti ak ci yenn détails yi lépp lu xam ne lu ci nekk ci njub njub la loolu mu ngi jóge ci alquran ak sunna jóge ci yàllaa ko yonentam lu ci nekk ci xeeti njuumte ci moom la jógee wala mu jóge ci seytaane noonu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu jéggal ko ko ñaan borom tabaraka wa taala mu def jotaay bi jotaay yi wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain السلام عليكم ñu sant yàlla ci may gim ñu may ñu toog teewlu jotaay bi te teewlu ko yëpp incha allah di gën a sant bokk mi nga xam ne moo doon def waxtaan bi ci Cheikh Mouhamad Ahmad Lo eh, di ko sant bu baax ci mottale bi nga xam ne moom la mottalee jotaay bi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nangul ko te nangul ñu ñun ñëpp incha allah te itam di ko ñaanal yàlla mu dëgg gën ko defal ab jàppandal ngir fii nga xam ne foofu la fekkee jullit ñi ci di leen leeralal seen wàllu diine yàlla te yàlla def gën ko defal ab jàppandal te loolu mu gën ci mën a gën a xaw incha allah